thank you asalaamaaleykum internet enquête 221 man maa ñëwaat encore une fois seen beneen numéro artiste sur la di leen nuyu di leen présenter seen euh, beneen artiste boo xamante ne tey moom la cent enquête 221 dalal di waxtaan ak moom di ñëwaat. indilaatal leen beneen aspect boo xamante ne comme ni ma leen ko daan waxee ah dinañu fexe ba lu ngeen lu leen jaaxaloon ci wàllu aar ñu indi la ko mais ku leen réeroon aussi tamit ñu fexe daal di leen koy indil tey bokk na si ñi ñuy indi ñi nga xamante ne bon sénégalais yi xam nañ ko bëggoon ko lool. daan apprécier ko daan daan daan apprécier li mu daan def wante ñu jéggee ba si yàgg à un moment donné gisatu ko ma bàyyi ko mu nuyoo tey waa enquête 221 ñoom ñoo ko indi tonton Pape Demba Ndiaye bu daaree coach ñu bàyyi ko mu nuyoo. Euh, jërëjëf euh, Amina <clears throat> maa ngi door sama nuyoo yi si yow euh, di nuyu aussi képp koo xam ne rek connecté wu nga si enquête 221 mooy site bi nga xam ne mooy joxe information yi ak aussi. vraiment di waxtaan ak nit ñi seen artiste seen bëgg-bëgg seen besoin donc euh, maa ngi leen di féliciter quoi les initiateurs euh, de ce site. merci beaucoup tonton Pape Demba ñuy am mbégte bu rëy ñun aussi tamit di la dalal parce que bon bi ñuy nekk xale dañ daan toog di seetaan bon daan apprécier amoon mbégte loolu tey ku ñu waxoon dinañ dem ba dund ak lii tey. je pense que duñu ko gëm. mais tout d'abord. ñu gëj la gis lool lool loolu euh, ñuy laaj lu ko waral. waaw gëj nañ ma gis euh, defe naa gëj a gis tamit euh, Daaray Kocc mhm. waaw man aussi euh, personnellement gëj naa yëngutu si activité audiovisuelle mhm. depuis bu ma yeboo wax ne 2012 mhm. puisque en mars 2012 defe naa si la Daaray Kocc ak man en tant que scénariste réalisateur gëj a def produit muy produit boobu ñu doon wax ay gaaf waaw en deux épisodes donc depuis lors euh, man personnellement wala daaray Kocc amatul euh, leneen lu ñu génn bon boo ko gisee nag euh, li ko waral c'est c'est très simple parce que man en dehors activité théâtrale bi nga xam ne moom la ma ñëpp xamoon dama am aussi une activité professionnelle à côté donc je travaille à la poste donc ñu dem ba demi jamono en 2013 ñu dénk ma ay fonction yi nga xam ne fonction yu yu fonction de responsabilité mm-hmm. au niveau de mon entreprise euh, La Poste fonction yooyu nag diis na diisaay boo xam ne très sincèrement euh, mënuma ko concilier avec le théâtre waaw parce que la preuve euh, lii loolu nañ ko lu yàgg mais ñàkk jot bi moo taxoon parce que pratiquement mën naa ne même les samedis et dimanches lu si bari damay faral di liggéey donc loolu rek euh, donc mën nañ ne euh, par manque de temps du réalisateur le Daaray Kocc a sombré Bon, est-ce, bon, peut-être sombre c'est, c'est trop dire, euh, ça peut être un gros mot, mais wax rek ne dañu jëloon daal ay années sabatique comme parfois di nga liggéey ba mu yàgg même bu dul woon samay activité tamit mën nañu toog euh, par rapport à l'évolution de l'audiovisuel parce que xam nga théâtre bi léegi nu ñu koy defee ak bu njëkk ba c'est un peu différent xam nga rek les technologie de l'information et la communication ensuite euh, ak télé yu bari yi fi ñëw ak ay sites depuis longtemps donc théâtre bi aussi dafa dafa suivre beneen évolution donc évolution boobu sax laajoon na nga toogaat réfléchiraat ko donc euh, mais mënuñu wax ne daaray Kocc euh, dafa sombre parce que euh, xëy na peut-être daaray Kocc en tant que tel defuñu produit mais ñu ngi gis yeneen artiste daaray Kocc yi si si yenn production yi quand même. Mm-hmm. bon daaray Kocc xëy na li tax ñu ci gën a taxaw. mooy dafa nekkoon école yaakaar. Mm-hmm. parce que mën nañ ne tey les bons moments qu'on a vécu si wàllu théâtre Euh, bon xëy nañ ñun fekkee wuñu euh, jamonoy démb mais Daaray Kocc moom moo ñu ko dundaloo tey mën nañ ne théâtre bu amee benn envergure bu mu am ba atteindre yenn plateforme yi ku jàng ci école Daaray Kocc nga jàngee tey bu ñu demee ba loolu euh, bi Cheikh Tidiane Diop génnee àdduna xel yi xawoon na jaxasoo yow bi nga ñëwee si la xel yëpp dal tey bu ñu demee ba lii dal nii lii am nii tey est-ce que nekkul xëy na yàqu-yàqu yi nga xam ne dinañ ci ñëwaat après yi am yëpp du looloo ko waral. bon damay dellu si rek si historique bi nga def euh, si Daaray Kocc euh, effectivement école la woon parce que euh, théâtre tam dafa am une fonction une fonction pédagogique une fonction d'éducation d'instruction donc Daaray Kocc aussi mosul nekk si si ligne boobu mais xam nga li ñuy wax rek les temps changent et avec eux les habitudes jamono day soppeeku te jamono bu soppeekoo tamit nit dafay soppeeku ànd ak moom léegi théâtre bi dafa jël beneen euh, envergure dootul rek ay ay yeddaate mais aussi dafa am côté distraction am aussi euh, yeneen aspect yoo xam ne mais mais mais côté distraction bu le faisiez. waaw tey mën nañ ne les premiers comédiens yi nit ñi gënoon ràññaatle mhm. mën nañ ci citer quelqu'un comme feu Mahoura Diaguèye feu Baye Pël mhm. ah quelqu'un comme Mamadou Pène ñooñu nga xam ne képp ku leen xam ci comédie la leen xamee waaw même en faisant de la comédie mën nañ ko parce que daara ko daan nañ def comédie mm-hmm. mais boo ko xoolee comédie yu bari aussi ay leçon la woon. effectivement peut xëy na leçon yi sax. Mm-hmm. il faut nga toog di expliquer nit ñi ne leen tel kii bi ñu koy def leçon bi lii la woon mm-hmm. léegi nag il appartient nit ñi ñu ñu décoder les messages yi nga xam ne moom la ñuy joxe ci euh, pièces yi que mu doon dramatique que mu doon aussi. Euh, une euh, une comédie. Mm -hmm. c'est vrai que effectivement ñi nga cité ñooñu ñoom Mokhro Diegay ñoom Mamadou Pène Ibolaay Mbaye Moustapha Diop euh, ñooñu ñëpp amoon nañu euh, nit ñi bëggoon nañ leen. même bu fekkoon dañuy def comédie aussi am na nu ñu ko doon defee ak surtout ndam si yàlla bu Faye aussi voilà. parce que il faut le dire au passage Daaray Kocc a perdu de très grands artistes ah. mais si si ndogalu yàlla daal ndogalu yàlla rek la mais quand quand je mhm. si perte bi mhm. euh, perte bi am na lu mu joué am lu mu wàññi bu baax si Daaray Kocc dem nañ ba benn moment on a que ni bon xëy na euh, ndogalu yàlla la certes mhm. mais dese yi ci biir Daaray Kocc dafa successive woon waaw xëy na Euh, peut-être euh, ñi nekkoon ñi nekkul woon biir daaray Kocc mënoon nañ ko interpréter nu mu leen neexee mais ñu ñu nekkoon au sein de daaray xam nañ ne ndogalu yàlla rek euh, moo ñëw mais du woon comme nu ko nit ñi fooge woon que dafa amoon ay pratiques malsaines bon il faut oser le dire ay liggéeyante fii wala mais daaray Kocc c'était d'abord une famille mm. man yàgg naa daaray Kocc depuis l'âge de dix ans pratiquement la commencé intégrer d'abord euh, la troupe daaray Kocc bu njëkk ba avant ñuy fusionner ak euh, ak euh, troupe yeewu di tudd jamonoy tey waaw ensuite euh, bi ñu séparé aussi la troupe daaray Kocc donc yàgg naa si quoi donc euh, les premiers pas de daaray Kocc fii la ma fekk donc xamoon naa ne c'est une famille où vraiment c'était l'amour c'était l'entraide non sincèrement bëggunte woon nañu suñu biir amul woon benn rivalité amul woon rivalité parce que rôle bu dekk ak ku ko ku ko yelloo woon rek lañ ko daan defee tey jii tey ñu ñu doon wax rek à chacun son tour chez le coiffeur. effectivement tey jii bu Awa Diagne interprété rôle principal ëllëg bu mbay la gannaaw ëllëg euh, keneen ainsi de suite Moustapha Diop Moustapha Diop combien de rôles principaux la interprété Ibou Laye Paris Gueye ndam si yàlla si moom tamit. Mhm. donc euh, yàlla rek moo moo moo ñëw daal. c'est parce que ñeneen ñi daanee ko ci moo si woon rek moo tax ñu xam mais chaque jour y des gens. bon mais peut-être xam nga tey li taxoon nit ñi di wax loolu moom mooy euh, kenn ku ci nekk bi nga laata génn àdduna feebar nga bañ lay ketal. tëdd nga tëdd bu yàgg bu metti boo xamante ne dafa doon nekk surprise si nit ñi danga daan toog gëj a gis benn nit nga xëy suba rek ñu génne gis ne soit dafa dafa feebar ba paralysé wala am na lu ko dal ba ñu hospitalisé ko wala sinon dafay nekk dans des états yoo xamante ne franchement ça dafay lamentable. xëy na moment boobu nga xam ne dafa amoon succession de décès à Daaray Kocc phénomène ket bi ñu doon def amul woon parce que dañu tegle d'abord. Euh, Euh, masse décédé ñu teg ci trois jours euh, euh, kenn bëggul gaañu quelques années après c'était Ibulaay Mbay mais ñooñu kenn ketewul leen woon ah. xam nga xam nga ñooñu moom mooy ñi nga xamante ne ce sont les premiers yi nga xam ne moom la daal ko mais par exemple quand je reviens tey ku ci mel ni Baye Pël feebaroon na. bon waaw feebaru na xam nga feebar moom euh, ñëpp. Euh, ñëpp lay daal ku aussi. waaw Aïda Camara tam feebar na pendant longtemps. voilà waaw euh, Baye Pël aussi feebar na pendant pendant des des années xëy na. ak ñeneen ak ñeneen mais je ne pense pas que vraiment <laughs> feebar ku nekk lay mën a daal parce que boo ko xoolee ku si nekk on ne va pas divulguer. Euh, secret yoo xam ne sa c'est si domaine nu santé la quoi parce que nit ku nekk lu ko dal xëy na ñi ko jege ak euh, famille rek euh, ñoo koy xam mais ñi décédé ñëpp seen feebar mooy feebar yi nga xam ne mooy rey mooy rey ñëpp donc ay tension diabète AVC toute forme de maladie quoi moo leen jotoon donc il n'y autre chose daal. je suis mm-hmm. mais tey quand on revient tey ay am na ñoo xamante ne dañ leen di ñaanal yàlla may leen wér. amiin parce que xëy na tey am na feebar boo xamante ne daf jeg ba si àgg rek dab leen. Mm-hmm. pratiquement récemment ba mooy xool. Mm-hmm. Euh, ñu ngi gis ku ci mel ni Maodo Diagne. génn na xëy suba am benn feebar tànk yi di neewi. ku ci mel ni Ndeye Khady. moom aussi feebar na. bon ñu ngi naan tane na tanewul léegi son état s'est amélioré. moom aussi feebar na fi feebar boo xamante ne presque bon nit ñi xawoon nañu jaaxle ci moom. waaw alhamdulilah ñi ngi ñaan yàlla uh, mu yokk tan bi. Uh, parce que uh, muy Modou Diagne di Ndeye Khady ku si nekk sa état de santé mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi amélioré wu quoi. bon mais daal euh, je ne sais pas xaw ma fan nga bëgg a dem ak man par rapport au maladies des artistes mais tout le monde tombe malade les artistes les gesteurs les footballeurs <laughs> mais feebar ñëpp lay daal dee aussi bàyyi fi kenn quoi waaw dëgg la mais xam nga xam nga tamit ñun sénégalais dañu am suñu ay bon pratique laa ko mën a tuddee xaw ma culture xaw ma mhm. culte waaw ak suñu ay pensée très bien parce que dafa am yoo xamante ne su amee ci kër te boo ko toppee toppaat ko soo deful ndànk di nga gis piste boo xamante ne dina confirmer li nga xalaat très bien xam nga lan laa mën a gëm li nga wax ne ñun sénégalais yi dañu am suñuy suñuy pensée ay préjugé préjugé mooy li nga xam ne li nga def sa xel la rek li nga xalaat la ko mais je crois que ñun ñun ñu nekk à l'intérieur euh, de de Daaray Kocc bon sincèrement euh, c'est la volonté divine noonu lañ ko noonu lañ ko interprété donc pour preuve euh, boo jëlee ku mel ni Ndeye Khady par exemple euh, depuis le décès de Cheikh pièce bi ñu njëkk a def muy l'arrangement moom moo ko interprété mais depuis lors Ndeye Khady joué woon dara donc kenn amul intéret amul benn artiste bu am intérêt pour euh, di def ay pratiques euh, occultes pour que Ndeye Khady puisse tomber malade nga mën a jël euh, place am non sincèrement très sincèrement je ne crois pas à ça loolu amul amul daaray Kocc tëggawuma ko. te man taxuma gëm sax trop pratique yooyu parce que yooyu bu amoon kon Sénégal est-ce que dina am ñu wér bu fekkoon nit mën na rek saa yu bëggee def nit ki mu feebar walla mu def ko mu dee. Ah, mais est est dina am. ku wér wala bokk euh, d' accord euh, tous les jours mu am ay décès mais je crois que donc décès yi dina multiplier wu par dix par cent ou par <laughs> mille mais mais tonton euh, sénégalais dafay wax naan ku ne ku ne sëriñ amul daf jàppul <laughs> te nag biñ koy wax ba tey ñi ngi gis ñuy def ñuy gis ah non non kenn mënu la taxaw wax ne te et puis sax d'ailleurs yéen ci seen théâtre yàgg ngeen ko joué yàgg ngeen joué koo xamante ne <coughs> dafay am xëy na dafay mere nit pratiquement un DG pour en ah am na beneen yeneen yu ngeen daan def tey koo xamante ne dafay nekk directeur ñu dem liggéey ko mu dof koo xamante ne dafay wujje dafay dem liggéey doom wujjeem yéen voilà joué ngeen ko. non ñun joué wuñu ko man euh, citeel ma rek benn euh, produit boo xam ne Cheikh Tidiane Diop moo ko bind wala man maa ko bind. ñu liggéey nit ki mu dee wala mu daf wala mu perdre emploi parce que xam nga am na yoo xam ne c'est pas euh, am na nu ko tubaab bi tuddee daal du lu du lu naturel quoi am nga ñun bu ñuy yeete ñëw ne am na ku mën a def euh, li yàlla di def bon sincèrement donc euh, amatuñu rôlu rôlu jàngaleetuñu daal en quelque sorte donc bu ñuy jàngale dañuy jàngale par rapport ak li nga xam ne c'est palpable c'est réel ak li nga xam ne yàlla moo ko wax man personnellement musuma xaw xaw ma am na xaw ma amul mais gëmuma loolu gëmuma ko te musuma ko tayaat ñun bu nit dofee wala mu kii yi demee noonu dañuy dañuy expliquer naturellement lan moo tax mu def wala lan moo tax mu feebar mais pas que dafa am ku nekk si gannaaw fay benn sëriñ mu takk ko wala mu liggéey ko mu dee wala mu dof quoi mais je crois que est-ce que bon xam naa même ñu bari ñu may déglu duñu d'accord ak man mais man. Ah, euh, loolu mooy sama mooy sama opinion. mën naa rappeler sa benn pièce. waaw waaw boo euh, xam ne loolu am na si. waaw moo waaw bi nga jógee Italie ñu refoulé la. on a vu. Euh, Rapatia ak Ndeye Khady indi si. société benn non non parce que yi gëm nañ ko ñi ngi koy def. mais bi ñu ko defee xam nga man lan laa Sénégal yi gëm nañ ko parce que ñi ngi koy def gaa yaa ngi dem si bu di di ñaan yi demee noonu man li ma gëm boo demee si sëriñ da ngay ñaan pour yow. ok lu la lu la yokk wala lu la aar xëy na mais pas pour ñaanal nit ki mu ki am na ñu koy def nag am na ñuy dem di liggéey nit pour mu kii ak demee mais est-ce que. effectivement li maro bi def moo tax nit ki feebar wala nit ki de man personnellement gowuma ko moo duro fële tam même bu ñu ko defee dinañ def parce que le théâtre n'est rien d'autre que le reflet de la de la vie quoi donc si kii nit ñi dañuy dem di sëriñtu ñu donc ñun mën nañu wane sëriñtu bi si euh, si si théâtre bi mais du ñu def ne sëriñ bi est-ce que sëriñ bi jàpp na ma man ba ma perdre sama entreprise est-ce que sëriñ bi jàpp na ma ba ma fayit wala ñoom ba ñu ñëw nekk kii xam xam nga xam nga sëriñ mënu defal mënul ñëw koo xam ne un élève de CM2 sëriñ mënu ko mënu ko defaral ba mu nekk ba mu am bac c'est pas possible effectivement donc boo ko xoolee foofu am na yoo xam ne doo ko gëm mënul defal un élève de CM2 sëriñ na na na ay parents jël cinquante meilleurs sëriñ ñu fa dem ñoo gën a ay Sénégal ñuy fanaan sa kër ga pendant des mois mënul am bac c'est pas possible bon su ma su ma ñëwaatee tout à l'heure vous avez parlé d'entraide mhm. euh, gis nañu benn instant yenn membre yi nga xam ne ñoo fa ne parce que bon dañu leen di considérer jusqu'à présent des membres de Daaray Kocc même euh, bien bien vrai que ni nekkatuñ fa parce que ci Daaray Kocc lañ leen xamee mhm. ñu tëdd feebar ñu génn di leen ketal donc qu'est-ce que le Daaray Kocc a fait pour eux est-ce que dañ leen a seetaan wala lu tax loolu bon man je ne rappelle pas ku feebar euh, au niveau de Daaray Kocc ñu lay ñu lay ketal je ne sais mais pourtant euh, sur l'internet on a euh... toujours demandé. de non xam nga il y waaw mais mais mais ay ay bonne volonté ñooy ñëw rek peut-être seeti Ndeye Khady ñëw def seen benn poste pour diir que vraiment aide à Ndeye yi loolu dara nekku si quoi. parce que mais mais am na benn boo xamante ne aussi dans une télé de la place Modou Diagne moo génn def communication wax dafa feebar dafa bëgg ñu dimbali ko. mais tey kooku dafa nekkoon foo xamante ne dafa am fu fuñ ko xamee woon ana ñooñu noonu tout d'abord. je pense que les premiers qui devaient réagir ñoom la woon. waaw bon d'accord te ñooñu génn ñu leen yéen ah, non non ça il faut ma wax la dara nag euh, Amina. Euh, daaree ko ci amul dara maanaam ay fonds yoo xam ne mën na venir en aide parce que comment ça se passe kii da def produit. bon di nga am ay dépenses yooyu def si produit bi mën nga def 4 cinq 6 millions ça dépend bon après sous forme de cassette commercialisée cassette yi bu ñu ko jaayee bu recette yi ñëwee alors euh, nga fay artistes yi ku nekk sa cachet amul benn euh, fonds boo xam ne dañ koy jël rek pour euh, financer Euh, des des activités à caractère social maanaam nit ki feebar wala nit ki nekk si soxla yu yu demee noonu quoi amul donc Daaray Kocc c'est pas une société okay. c'est pas une société comme la Poste ou un agent de la poste est malade ñu war ko évacuer en France ou en Tunisie le DG ñëw génn ñu jox ko dara loo xam ne mën na ko dimbali foofu c'est daara ko ci fonctionné wul noonu amul aussi loolu loolu tam boo ko gisee c'est parce que ñun théâtre bi vocation la woon bëgg bëgg la woon si ñun mais sincèrement le théâtre xëy na léegi avec les séries mais bu njëkk ba ñun ba ba may bàyyi le théâtre ne nourrissait pas son nom mais mais xam nga yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi commencé ay 1900 dem ba ay 2012 vous nous dites que ni Daaray Kocc nekkul entreprise. nekkul entreprise parce que waroon mën a nekk la. Daaray Kocc lan la commencé. théâtre sur scène dem si dëkk yi ay ay Diourbel Saint-Louis wala si petite localité du di ka je me rappelle temps yooyu cachet yi ay cent mille francs la woon quoi cent mille francs la fay euh, troupe bi bu ñu paree bu ñuy ñibbisi bu ñuy seddoo ñii am deux mille ñii am trois mille juste de quoi acheter ay charité comme ni ñu ko tuddee booy ñëw quoi donc après aussi après on a commencé di jouer à la télévision sous forme de captation yi demee noonu loolu tam télévision man cachet bu gën a mag du ma wax ñeneen ñi man personnellement cachet bu gën a mag bu ma fayeeku télévision c'est cent quatorze mille francs muy si Kolle Chéri tax te loolu taxu koo yàgg noonu ah Kolle Chéri c'est juste dans les années 2000 ah cent quatorze mille francs xoolal xoolal loolu léegi yeneen yi ñu doon def nii man personnellement cachet bu gën a rëy bu ma fay artiste c'est trois cent mille francs mais c'est parce que trois cent mille francs temps yooy ba da ngay génn cassette tu n'arrives même pas avant vendre euh, bu jëkk ba boo defee benn cassette pour nga am 4 millions il faut nga def ñaari cassette vol 1 ak vol 2 4 millions 4 millions nga génn say frais tournage jox si artistes yi tamit li si seen seen àq mais est-ce que <laughs> tu mais boo demee si yenn entreprise ay Sonatel ak demee noonu mais seen euh, bénéfice est à coup de milliards yeneen entreprise yi à coup de centaines de millions mais daal ko ci ne ne réaliser pas de pratiquement pas de bénéfice parce que boo bëggee te dara doo fay artistes yi seen seen seen seen seen seen ñàkk quoi yéen mën nañ ne bu dee troupe théâtrale bu gën a mag Sénégal yéen la. vous n'avez jamais eu euh, l'aide de l'État et pourtant da ngeen vous êtes sous couvert de du ministre de la culture. waa et état état peut-être euh, ay subvention la subvention yi tamit bi si gën a rëy deux la te peut-être euh, ñun il a fallu subvention bi ñuy mujjoon am avant subvention bi ñu mujj am. 2 millions c' était sous le magistère de Mbagnick Ndiaye. xam nga xam nga loolu yàggul. avant boobu. subvention bi ñu mujjoon am c' était du temps où Koura Bacham je crois était ministre de la culture et c' était 500 000 francs. je pas. donc euh, bon je ne sais pas est ce que état aussi bon peut être de temps en temps état mën na subventionner troupe mais mënul. subventionné juste à hauteur euh, de de cinquantaine de million wala deux cent léegi actuellement ñi fi nekk ñoo ëpp ñoo ëpp. parce que actuellement y' a y' a le FOPICA. oui bi nga xam ne am na ay financement d' une vingtaine d' une trentaine de million foofu nag laa xaw a kiiwee tuuti quoi FOPICA. déposé naa fa projet mais pour le da pour Daaray Kocc mais on ne nous a pas financé. Ah, mais moo ta nag vous avez eu tort euh, ci dislocation de Daaray Kocc. non parce que na si euh, Daaray Kocc tas na tonton Pape. <laughs> Daaray Kocc moom léegi tas na xam nga lu tax. xam nga ah? Ah, d'abord tas na wala demee noonu actuellement ban troupe moo tasul. non euh, nu mu ban troupe moo tasul Soleil Euh, soleil levant xoolal bu baax soleil levant euh, seen série yi ñuy def quoi c'est pas léegi fa li ma bëggoon euh, wax foofu que daare ko ca tas na wala tasul c'est pas important parce que actuellement wax naa la sànq ne affaire théâtre dafa évoluer de. waaw mooy léegi théâtre bi dootul affaire troupe si si non dootul affaire si pourtant léegi actuellement on parle de théâtre mais ce n'est plus du théâtre li ñuy def ça s'apparente cinéma la gën a jege. ok bien que àggugul si cinéma. mais cinéma la gën a jege que théâtre. ok donc euh, xam nga théâtre mooy am troupe mais booy def euh, production audiovisuelle ay mu nekk un film wala mu nekk un feuilleton wala mu nekk une série c'est pas une troupe tu fait un casting. da ngay xool que kii bi mu nekk ko ci mu nekk Soleil Levant mu nekk jamonoy tey ak fu mu mënti nekk yow mi bind sa truc yaay xool eh, quel est le meilleur profil pour interpréter tel rôle. nga jël ko au-delà appartenance si troupe wala yu demee noonu moo tax ma la actuellement troupe amatul importance. xam nga lan moo tax maa wax la loolu ah. alors amatul importance j'insiste sur cela bàyyi ma ma expliquer leen. allez-y tey gis nga théâtre. Mhm. c'est vrai que gis nga ku nekk dina bind ñu demander casting nit ñi ñëw. mais troupe Soleil Levant tey moo moo porté le flambeau du théâtre c'est eux qui font vivre le théâtre parce que xam nga lu tax tu regardes yeneen produits mais gis nga euh, troupe Soleil Levant doo ko tëkkale ak beneen troupe tey da ngay xam ne yéene amateurisme la mais Soleil Levant professionnalisme la tey dañ leen di jël du ñu yóbbu seen produit fenn. ba mu taxawaalu xam nga lu tax c'est des gens yoo xamante ne dafa am ci benn troupe bu ñu leen xamee ñuy ramper di ramper ba yegg si si benn niveau boo xamante ne seeni produit léegi nii ñoom ci seen jëmi bopp ñoom ñoo encher seen bopp nit ñi ñooy daw di leen ut si mais dawatuñu uti ci kenn looloo tax ma ne leen le Daaray Kocc a tort de se disloquer. non daanaka n'a pas tort de se disloqué wu ñu déggoo li ma la wax boo siti boo ma kii woon ba dama ne la man personnellement li nga ah. xam ne boo j'étais euh, le directeur euh, de Daaray Kocc bon en même temps scénariste aussi man maa amatul jot donc euh, bon am na peut-être euh, loo xam ne bu dañee si kii euh, dañu foogoon ne peut-être que du yàgg affaire demee noonu mais ça commence a durer ko man dama doon wax rek damay damay bàyyi théâtre bi le temps de me consacrer à ma carrière professionnelle bu carrière professionnelle bi jeexee mu duggaat si théâtre bi mais donc euh, daaray ko ci euh, n'est pas disloqué. waaw mais attends mais dama la mm-hmm. benn affaire tey. Mm-hmm. waxoon naa la ko sànq ci début bi. Mm-hmm. Cheikh Tidiane dafa génn àdduna nit ñi tiit mais biñ la gisee que nga porté flambeau bi lu dafa mel ni bon peut-être desem feeñatul mais yow tey macha allah yal na yàlla may gudd fan ak wér mais jot nga ñàkk ndax sa liggéey cela veut dire que ni ni mu defoon moom ba formé la yow nga ñëw tey mën a taxaw taxawaay bi mu amoon tu n'as pas genre nga baal ma mais mën naa ko tudd comme si fayoon naal bi xoolal ma. Euh, non non gis nga am na man awma le même don que Cheikh Tidiane Diop <laughs> sincèrement amuma woon les même capacité la même compétence que Cheikh Tidiane Diop loolu moom dafa am billahi wallahi taala. waaw mais am nga am nga sa formation Cheikh Cheikh yàlla moo ko mayoon. c'était un don de Dieu il n'a même pas fait des études euh, littéraires mais des études scientifiques. mais yàllaa ko mayoon xam nga yooyu day am yàlla may la nga mën football wala yàlla may la nga mën a bind wala yàlla may la nga mën a jouer mhm. loolu la Cheikh Tidiane Diop amoon ñun nag Cheikh si li ko yàlla mayoon la ñu doon topp di ko xool ba kii man li ma li ma dama dama toppoon si gannaaw Cheikh Tidiane Diop rek depuis longtemps affaire de même xëy na il n'a pas eu le temps parce que décembre daf ñu bett sa ginnaaw mais léegi léegi moom loolu Cheikh mënoon man mënuma ko peut-être Cheikh euh, amoon na pédagogue la woon amoon na pédagogie pour inculquer son savoir euh, à d'autres mais man yàlla yàlla mayuma loolu ko man dama doon basé wu rek si li Cheikh Tidiane Diop di di def di ko di jéem a tricher un tout petit peu xëy na réussir naa ko à quarante à mhm. cinquante pour cent mais quand même facilité bi mu amoon sincèrement man man amuma ko woon quoi te et puis aussi euh, disons que ñi nekk si daaray Kocc yi ñëpp ñu nga mujj a gis yëpp ñu nekk si daaray Kocc à part xale yi xale yi ñu ngi leen doon formé nank à part xale yi man ñëpp dama nekkoon ak ñoom dans la même école dans la même école de Cheikh Tidiane Diop quoi. voilà euh, quand je reviens la dislocation de du troupe. disloqué wu ñu. non xam nga lu xam nga lu tax may tëdd baatu dislocation. Uh-huh. mooy dañoo tasaaroo. tey boo demee ci fu nekk di nga fa fekk ku nekkoon. très bien Daaray lan moo jur loolu. xam nga lan moo ko jur mooy li ma la wax léegi ne la léegi actuellement kii bi audiovisuel bi ni muy fonctionner production audiovisuelle ni muy fonctionner troupe amatul importance. mais jëlal xo xanaa gisuloo tu n'as le paysage audiovisuel les séries yi am ak yi demee noonu xanaa xooluloo ko boo jëlee Pod et Marichou mais kan moo fi nekk est ban troupe moo moo interprété Pod et Marichou. looloo waral amul troupe. waa xaaral amul troupe mais tu verras tu as un artiste de Daaray Kocc Ndiankou Sembène si Pod et Marichou boo demee si wiiri wiiri kan moo fa kii à part ak y a une base certes yoo xam ne dañ leen xamoon troupe soleil levant xamoon si soleil levant am ñoo dañ leen xamoon si soleil mais boo ko xoolee actuellement boo xoolee tous les acteurs y plus d' artistes yoo xam ne nekkuñu woon Soleil Levant que artistes yi nga xam ne Soleil Levant lañ leen xamoon et c' est tout à mais dem nañu ba ba ba Dieynaba très connu au, au sein de Daaray Kocc di interpréter un très grand rôle si si si si wiiri wiiri bu yàggul Mariam Balde bi interpréter le rôle de Rokhaya si Laay Sangara ah. bon xëy na génn génnagul mais elle a été pour interpréter un rôle euh, kan moo nekk euh, à la base Serigne Ngagne Serigne Ngagne fan la nekkoon. Serigne Ngagne mi ngi woon ah. mais est-ce que euh, Mbertel jànqeen la. donc il faut ñu comprendre l'évolution euh, de, de des productions audiovisuelles. je suis d'accord ce n'est plus ce n'est plus une affaire de troupe. tonton Pape Demba tey loolu moo indi ok casting boobu. moo tax tey euh, paysage théâtral bi ibbeeku ba ku nekk sañ lu nekk. xam nga lu tax tey boo xoolee tey. à l'unanimité théâtre dafa yàqu ñun ñëpp ko seede te je pense que nii bon xëy na yow doo ko wax parce que par générosité ak bañ a vexé ñeneen ñi. non c'est pas par générosité. Uh ah. -huh. mais que franchement muy wiiri wiiri partout je l'ai dit foofu muy wiiri wiiri muy Pod et Marichou wala Mbetteel rarement laa siy tombé. loolu li ma ko am mooy li ma téye ba man mënuma def production moo ma téye ba mënuma seetaan production. ok et j'ai pas le temps di connecté wu si YouTube wala affaire demee noonu wala si seen euh, si seen site yi pour regarder aw ma kii mais je me suis dit bés ma demee ba retraité li may jëkk a def. mooy dugg dans les sit dugg si kii yeeg YouTube pour voir tout ce qui m'a échappé actuellement damay toog nii rek ay wiiri wiiri kii mënuma la wax sax bon jour est-ce que euh. est-ce que mën naa la jox benn conseil waaw je te conseille de ne pas regarder <laughs> non il faut que je regarde ah non xam hmm. euh, ah. depuis euh, ma petite enfance dañuy suñuy seetaan say pièces théâtrales ñu ci bëri dañ daan wax ni loolu ñu yaru rek lañ lay jox dafa dem ba dafa nekk éthique boo xam ne dafa nekk si yow on te regarde on voit un homme poli mais tey si je te dis de ne pas regarder c'est parce que tout simplement boo seetaanee tu verras des choses yoo xam ne dafay heurter sa conscience parce que xam nga pourquoi je te dis que ni euh, théâtre yàqu na quand je prends euh, benn pièce bu mel ni pot et Marichou li ñuy def Sénégal c'est dafa dafa jéggi dayoo. dañuy nekk di def ay scènes yoo xamante ne amoo sañ-sañ toog ak sa papa ak sa yaay di ko seetaan des jeunes ki s'embrassent yéen seen seen jamono joué ngeen lu nekk ba mu des loolu nan nga gisee loolu. bon bu fekkee am na comme li ma la wax. si c' est. Euh, seetaan ma ko bon ñun. Euh, moo tax nag daawuñu ko def. voilà te je ne pense pas que même bu ma dellu si waatee si production audiovisuelle je ne pense pas. xaw ndax ñemeñ naa ko def wala wala déet mais xëy na tamit ak lu si mëntu doon ah, ak lu mu si mëntu doon parce que xëy na peut-être dañu internationaliser euh, li ma jot a seetaan li may xool parfois si Pod et Marichou euh, amatuñu cible rek les Sénégalais quoi mais il veulent peut-être exporter leurs produits au-delà de nos frontières waaw mais attends te ko waxuma dama d'accord si non ba xam xam nga lan laa la bëgg a laaj. waaw seen ay produits daan loolu leen ko exporter au niveau international. waa au niveau international mais toujours destiné au Sénégalais. waaw au niveau destiné mais attends parce que c'était en wolof. ok c'était pas sous-titré. waaw bon xëy na xam nga loolu temps léegi bu ñu doon defaat production dañ ko def de telle sorte que ça peut être regardé. au Cameroun ok je suis euh, est-ce que cela vous permettait est woon na. permettre woon na leen. ngeen di def yenn scène yi. ci seen théâtre xam nga euh, tey ah ba baal ma dagg la. xam nga tey je me rappelle très bien quand euh, bu ma leen daan seetaan ngeen war a tourner des seen yoo xamante ne ñaari jëkkër ak jabar la yu war a tëdd si lal da ngay gis ni balaa ñoom ñaar ñuy bokk doo tëdd sax. fay ngeen lampe bi mais tey moom daal di suivre quoi oh, oh, non mën naa la euh. mën naa la nettali ay pièces théâtrales daal ko yoo xamante ne loolu xëy na mën naa ne sax juddooguma woon mën naa la ko nettali quelqu'un comme Dieu euh, Astou daf doon wax ni dafay sóoraale ëllëg ay njabootam moo tax am na yenn scènes yoo xamante ne du ko joué. non même dañ ko dul woon joué sax yenn scènes yi moom on euh, daaw ñu ko joué des scènes euh, obscènes souvent dafa am obscène wala des scènes érotiques wala yo yooyu moom sañuñu ko woon sax daal en quelque sorte mais j'aurais bien aimé sincèrement quand je dis c'est pas pour bañ a prononcer woo ki demee noonu quoi mais tombeegu ma si scène yooyu nga may wax bu si li ma xool parce que je regarde mais li may gis tombeegu si mais sincèrement bu ma si tombe woon ba gis kii bi xëy na dinaa mën a apporter une critique critique pas pour euh, critiquer pour critiquer mais critiquer pour dire mon avis peut-être qu'on peut en tenir compte ñëw joxe ay conseils ne bon kët dafa am si si cinéma daal. en quelque sorte ellipse dafa am. yaa a des yoo xam ne dañ xam ne lii am na mais kenn du ko gis. xam nga tey. mais tombé gu si seen yooyu. ok je suis d'accord xam nga tey euh, exclure nga troupe. lu mel ni man dama gëm ni soleil levant troupe bi dafa exister bien vrai que y a Moustapha Diop y a ah y'a aussi tamit ci euh, seen élément yu bëri yu nekk foofu mais foofu tey amul yenn scène yoo xamante ne sañ nañ ko def parce que da ngay sentir ay ténor yoo xamante ne dañoo nekk ci biir euh, troupe Soleil Levant dañ fa ñëw yokku si. ñooñu nga wax ma xam leen jamais ils n'accepteraient de jouer des scènes osées. je suis d'accord moo tax loolu amul ci wiiri wiiri quand je prends benn série une série comme Pod et Marichou Ñanku Sembène mi ngi fa Ñanku élément daaree ko la moom moo joué Laye Sangara. avant Laye Sangaré am na yeneen yoo xamante ne joué nañ ko tey si seen formation la jaar donc pourquoi ñoom ñuy accepter di def loolu noonu te ñee nekk fële na le nekk seen i grand accepté wuñ ko. mais je crois que xam nga yow yan condition la ñuy tourner euh, si tu n'es pas concerné par une scène doo fa nekk. donc yow de bu ñuy tourner dañ lay jox sa calendrier de tournage tu tournes lundi jeudi vendredi à telle mais yeneen séquence yi ñu koy tourner quand tu n'es pas concerné mënuloo ko fekk. peut-être Niankou prestataire de service ak la si ki il vient euh, jouer un rôle interpréter un rôle moom lay interpréter xëy na peut-être buñ ko ne woon euh, fonanteer wala kii xëy na du ko def. waaw mais xam nga xam nga tey euh, bu ñuy seetaan théâtre du ñu seetaan séquence. bu ñuy seetaan théâtre séquence. mais ku nekk séquence yi la concerné moom ngay moom ngay fekkee. et puis produit jàmbur aussi Niankou c'est pas lui qui écrit c'est pas lui qui assure la direction artistique c'est pas lui le réalisateur donc euh, il peut pas demander de leur dire non non non vous faites il n'est pas encore moins producteur. je mets ma main au feu je mets ma main au feu que. Mhm. suñ la jëloon benn épisode ci Pod et Marichou nga joué si defoo loolu noonu soo ko seetaanaatee gis ñu def si lool di nga ne dootoo tourné ti. bon je sais pas <laughs> vous connaissant léegi li ma bëgg a wax si ñànku moom mooy euh, lan moom moo tax charisme boobu noonu aussi tamit absence de cet charisme. absence de. Ah, fulla boobu noonu. waaw parce que am na loo xamante ne aussi. sa image mais loolu tamit euh, ku nekk ak say kii bon chacun peut mën nga dangay def rek li la concerner en quelque sorte quoi. da def la concerné étant entendu aussi que bon am na artistes yu bari loo xam ne bon ils vive de ça en quelque sorte quoi donc euh, parfois xëy na yow tant que scène yi concerné wu la concerné wu la mën nga ko def boo ñu fay la nga dem nga dem sa yoon. Euh, dialogue dialogue yi dialogue yi dialogue yi ci seen théâtre yi comment ça se faisait. ah bon man de personnellement ah. Euh, bu may daan def euh, scénario j'écrivais le dialogue okay. les dialogues dama koy bind ba mu jeex euh, première séquence première scène ba la dernière euh, tout était dialogué quoi donc euh, les artistes dañ daan jàng seen texte ñëw appliquer seen dialogue réciter xëy na nag mën nga may artiste bi benn une certaine liberté d'action boo xam ne bu fekkee du travestir yow idée yi nga bëgg a joxe quoi waaw mais bu dee mën na ko oh. mën na enrichir son dialogue y' a pas de problème mais dañ daan dañ daan dialogué tout était dialogué mais man li may jot a seetaan si kii il me semble que bon peut-être que les dialogues ne sont pas écrits peut-être. Euh, loolu la quoi xëy na am na ñoo xam ne ils n'ont pas le temps d'écrire. waaw mais euh, non le théâtre ne se fait pas comme ça. léegi da ngay gis en plein théâtre nit saaga. saaga ndey. saaga ndey. oui en <laughs> ah non loolu dafa exister. Sanex l'a fait Pod l'a fait je peux te citer tant d'autres yoo xamante ne en pleine télévision et pourtant waroon nañu mën a dagg séquence boobu mais dañoo jël responsabilité teg ko diviser ko ñëpp di ko seetaan. waaw parce que même boo defee erreur l'artiste bu defee erreur euh, au cours d'un tournage du ma la jàngal euh, les techniques de montage. très facilement mën nga ko supprimer au montage quoi parce que on euh, peut-être ñeneen ñi xamuñu mais bu ñuy tourner euh, benn séquence mën nañ ko tourner dix fois. waaw lan moo tax ñu jël responsabilité di bàyyi saaga ndey di jàll ci théâtre mais kan moo ko kan moo jël responsabilité bàyyi ko. ah mais léegi looloo fi am ah. non te loolu moo doon c'est malheureux que dootoo seetaanati théâtre ah. non seetaanatuma quoi. waaw mais non seetaanal seetaanal on a. besoin très bien loolu laa doon de ne pas moi je gis nga temps bi ma amee jot bi dëgg bon je travaille ah j'ai toujours travaillé mais xëy na responsabilité yi ma am tey am ma ko woon démb bi may dugg si bi may bi may nekkee en plein dans les activités théâtrales quoi mais gis nga moment yooyu amul benn cassette buy génn. xanaa ma bañ ko gis wala ma bañ ko yëg te seetaanuma ko quelque soit troupe bi parfois du ma xamaa ah, dem naa si Gajaga dem naa si kii euh, ban cassette moo génn ma ma jënd parfois même am nga ñu bari daaw ñu defar cassette originale dama daan jënd cassette yi. pirate pirate. waa parce que moom laa doon gis laa la en quelque sorte quoi donc rien que par amour du théâtre ensuite pour man dama doon wax ne euh, produit lu mu bon bon bon. dina si am benn wala ñaari séquence boo xam ne man mën na ma inspiré. ok kon comprendre loolu am na waa produit non bien sûr même si en France les films français les films am navet kan moo ko inventé du ñun sénégalais yi ñun ñoo inventé navet avant ñuy def théâtre yi on parlait de navet pour de films américains pour des films français même français ak américains dañuy def lu bon. bon donc ñun tamit ñi nga xam ne amuñu trop les moyens. ok xam naa instant ni émission bi jeex na. ñu ngi may def signe. mais tonton Pape Demba. bon li ngay li ñuy tëjee dama bëgg Pod et nga setaan ko et puis quelqu'un comme Pod bu nekkee je sais pas wala nga woon ñàkku sembeen que nga eh, nga dimbali Sénégalais yi nga joué rôle arbitre. waaw vraiment pas arbitre mais rôle coach. je le dis ici solennellement di ko déclarer solennellement. Euh, déjà li ma jotu seetaan si pot et Marichou sincèrement euh, c'est bon maa ngi encouragé euh, d'abord le producteur ak aussi les artistes scénaristes yeeg et toute l'équipe technique maa leen di encouragé c'est un bon produit mais bu fekkee lii ñu wax dëgg la que si Pod et Marichou y a des scènes. obscènes ah la susceptibilité des gens loo xam ne vraiment c'est pas sénégalais maa ngi leen di ñaan maa ngi demande franchement le producteur le réalisateur le scénariste le directeur artistique le metteur en scène sincèrement seen yooyu ñu éviter ko quoi bu fekkee am na. merci. bon tonton Pape Demba Ndiaye euh, mu nekkoon réalisateur bu Daaray Kocc moom lañu leen dalaloon ci seen numéro artiste sur la toile bii nii ñu koy jaajëfalaan ah, di ko sant di ko gërëm xëy na ñu mel nii ñu génn di wax dafay nekk lu amal solo sénégalais yi parce que dañ ne xëy na bu coow li baree da ngay déglu borom xam-xam te walla bi nga xamante ne moom la nekkoon nekkoon na ci koo xamante ne li ko nit ñi bëggee mooy bés lu mu ci daan def rek ku ko seetaan wax dëgg yàlla da ngay apprécier doo am lenn loo ci naan accam kon nag tey bu ñu demee ba toog gisatuñ ko ah ñoom seen wàll am yoo xamante ne da wàll si yàqu yoon la ñu woo ku mel ni moom mu ñëw toog rawatina moom mi nga xamante ne non seulement il a acteur il a aussi réalisateur. kenn gënu koo yey ci wax loolu ñaaxaat senegal yi euh, wante tegaat leen ci yoon xamal leen nag ne leen théâtre dafa mës a nekk lu yeete théâtre dafa yeete xam nga ton noppal dem ba tey su ma demee ba ñu ba tey am na loo xam ne yéen wax nga ko sànq ci sa biir wax nee nga daanu leen jël di def scène boo xamante ne dafay dénoncer lu bon mais da ngeen di yeete ci lu bon ni mais tey seen buy dénoncer lu bon dañ koy def dañ koy def. tey doo xam euh, le projet c'est quoi des fois tu dis que nit ñii dañuy yee nit ñi wala dañ leen di jàngal nuñ koy defee parce que dañ koy def seen bi duñ ci bàyyi dara wan nit ñi nuñ koy defee donc loolu c'est un peu inquiétant ñu ñan nag sénégal yi comme ni mu ko waxee am na loo xamante ne boo ci nekkee da ngay déglu ñenn ca jiitu te def ci lu kenn dul dindi boo ci bëggee mucc ñu bàyyi la nga tàggoog internet enquête 221. waaye euh, jërëjëf euh, Amina am naa woon mbégte trop euh, ñëw réaliser ITV bi ak yow donc di tàggu képp koo xam ne internet nga di jàpp enquête 221 xam naa di leen jox rendez-vous d'ici peu parce que comme ni ma ko waxee rek dama nekk ci sama activité professionnel donc mayuma temps trop euh, ma reprendre euh, activité théâtrale yi mais incha allah mission bi nga xam ne moom lañ ma dénk poste bu jeexee si jàmm ak salaam et de la meilleure manière qui soit bëgg naa bu fekkee yàlla may na ma gudd fan wér-gu-yaram may ma aussi xel bi nga xam ne euh, moo fi nekkoon bi may bind ay scénario di leen réaliser may ma aussi passion bi ma amoon parce que dafa mel ni dama commencé perdre passion bi parce que pendant six ans defuma ko yàlla na volonté boobu ma amoon bëgg-bëgg boobu ma amoon maa ngi ñaan yàlla mu dellu si ba ma mën a ñëwaat reprendre les activités théâtrales yi pour euh, bégal euh, Sénégalais yi. Euh, ñu leen di jaajëfal di ko jaajëfal moom aussi tamit di leen jox rendez-vous si beneen numéro ay artistes sur la toile ak seen xarit Amina Paye jërë ngeen jëf.